message bi Aziz mujjee lancé ci réseaux sociaux yi man message boobu rek laay jaaraat muy il faut ñu dimbali ñu ci peine de mort mu am parce que peine de mort moo fi mën a jëlee yenn ñaawteef yi parce que même affaire Aziz Dabala bi ba mu amee léegi déggan nañ fi ñetti mort ci diggante bi benn bi dégg ngeen ko Tëngéej hmm. benn bi dégg nañ ko Yëmbal benn bi ñu dégg ko Grand Yoff hmm. mais ba kañ lépp banlieue bi la mais à part ñooñu kan la nar doonaat ëllëg mais il faut que tamit ñu dimbali ñu si peine de mort te xam ni peine de mort rek moom moo fi mën a jëlee lu ñu fi jëlee parce que ku rey dañ la war a rey te buñ lay rey nañ la teg ci digg penc mi rey la àdduna bi yëpp gis ko teg ci seen bët boobaa def ko tu ñaawte fi li ñuy def dinañ ko arrêté boobaa ñu wàññee parce que tamit Aziz ñi ko def lii li ñu def dafa ñaaw ba ci kanamu yàlla parce que li ñu li ñu def boo xoolee enquête ak li mu wax rek di nga xam ne ñoom lu ñu def ah lu ñu tey la te lu ñu xam la parce que du ñu def lu ñu def ba pare demat ba ci kanamu enquêteur. Mm. ñu leen di laaj ñu naan parce que dafa am lu mu nekkee woon neexuñu loolu lañ demoon pour yeddi ko parce que loolu lañ ñëw bëgg bëgg ko masquer seen seen seen seen seen ñaawteef bi waaw def nit lu ñaaw ba pare di ko waxalaat lu ñaaw est imagine ngeen loolu nan la war a toll ci doomu adama nan la nit mën a amee sadik bu toll noonu kooku est war na société war na ko jox deuxième sens kooku est war nañ ko war a mën a pardonner kooku kenn war a pardonner kooku dañ ko war a tëj giiru dundam mu deewee ci kaso bi te tëj ko fa sax di ko jox lekk ak naan sax yàq la mais dañ leen li ah, luñ war a tëj jeexal wax ji lu war a mën a jeexal kirim leen kasa mooy ku rey nit wax dëgg neex yàlla dañ laa war a rey te xam ni loolu la lislaam wax ñun ñoo am yërmande ba ëpp yàlla yërmande hmm. ñoo am xam-xam ba ëpp yàlla xam-xam te yàlla mi ñu sàkk nga xam ne lépp lu mu sàkk doomu aadama moo ko ci gënal yàlla moo ne la xaddam ni karam naa bandi aadama hmm. lépp lu ma sàkk man yàlla doomu aadama moo ma ci gënal yàlla moom moo ne nit bu reyee nit te tey ko hmm. nit boobu noonu nañ ko rey ba gën a xam yàlla nañ waxante dëgg. mais am nga ci ku ray ñu ray la. parce que buñ ko fi deful tamit du fi jógee nee naa la Aziz Dabala demam béeg léegi semaine tey mooy huitième jour bi. Mm. tey mooy juróom-ñetti fan bi. moo moom moo perte ci diggante bi nee la ñetti crime déggaat nañ ko fi mm. benn bi Tëngéej benn bi Grand Yoff mm. benn bi Yëmbal mais après kan lay doonaat. voilà mais Nabou Leye bi euh, ñun Aziz ak Nabou Leye ñun ñëpp ñun dañoo yarandoo Nabou sama waay la man sama gaañ la dama koy woo téléphone daan ko jaay pere ñuy tooñanteeg lépp ay magam yu mu bokkal deret samay waay lañ ba ci ay nijaayu deretu yoonu yàlla maam nabi famille lañ boo bëggee dégg-dëgg man li tudd buñ ko ci tudd yoon moo ko yoonu liggéey yoon la ko man li famille Aziz wax rek laay waxaat parce que man famille Aziz dañ maa jàngal ci àdduna dal maandu ak teey parce que xoolal mbir mi lu muy métti métti ak nu deret foore ak yaakaar bi ñu amoon ci Aziz ñoo ngi dal loo wax ñu la ah, yoon de moo wax loo wax ñu ne ah nañ bàyyi rek yoon def liggéeyam kon man tamit na ñëpp def ni ñoom. na yoon def liggéeyam rek. voilà man loolu lay wax. ku mel ni euh, euh, Nabou Leye est-ce que déjà ñoom est-ce que présent nañu ci dëj bi est-ce que seen waa kër ñëw nañu jaale leen moo xam démb la moo xam bërki démb bi affaire bi amee ak léegi ak tey lan moo ci seen taxawaay ñoom Nabou Leye ak waa këram surtout. waaw waa këram Nabou Leye moom ñëwoon nañ ñëwoon nañ ñëwoon nañ ci dëj bi ko waaw su ma juum daal ñëw nañ ñaari yoon. waaw ñaari yoon daal ñëw nañu kon relation yi ngeen doon am ak ñoom démb ak bërki démb ba tey yéen a ngi koy continuer di am ak ñoom waaw war naa mën a nekk lépp war naa mën a nekk parce que ñun ñëpp waa ko ñoom Nabou la suñu waa ko ñëpp benn lañ te yàgg na ko loolu démb la woon waaw li ñu wax aussi ni ñoom ñaar dañu doon génn maanaam à part euh, liggéey bi dañu doon génn te mu nekk ci Euh, PV bi ci li ñu far bokk est-ce que loolu yëgoon ngeen ci am na lu ngeen ci yëgoon. non loolu moo wax dëgg fa yàlla moom xaw ma si woon dara Naboulaye ak Aziz moom Aziz mooy Naboulaye Naboulaye mooy Aziz waaw kon Naboulaye mooy gëj naa kaa gis Aziz laa mujjee gis quoi Naboulaye ñuy gis maa moom bëriwul xaw ma sax xaw ma woon sax contact am problème bi la moo tax ma amoon moom contact mais Naboulaye wax dëgg fa yàlla moom Naboulaye la quoi borom baax la Aziz tamit moom borom baax yàgg nañ trop. xëyoon tamit nag comme lii mi ngi si loxo yoon moom bàyyi noonu rek yoon def liggéeyam boobu. d'accord euh, loolu lan leneen lan nga ci nga ci nga ci nga ci euh, sànni ak surtout milieu danse bi euh, ar ar surtout avant sax ñu ñëw ci milieu danse bi Aziz naka la faytewoo seen waa ci wàllu taxaw est-ce que mën nga ci ñëw tuuti ci témoignage. waaw ah, Aziz moom su fekkee effet danse moom mun naa ne yàgg na si trop. parce que def na si presque ay vingt ans vingt et un ans waaw euh, Aziz man jàpp naa ne sax waykat lay doon quoi parce que dafa bëgg musique quoi yàlla xam nag mu waykat laa jàpp na Aziz waykat lay doon ko mais xëy na yàlla fecc la ko kiiwee quoi waaw yàgg na si trop waaw moom Nabou-Leye li ñu si rawante bëriwul Nabou-Leye si dama ba fecc Aziz la ñoom nabou ak ñoom day xadi la ak ñoom may gajaga ñeneen ak ba bëri lañ booy Aziz ñu boot moo bëri quoi waaw nu mu boot moo bëj ba yàgg na si aar bi trop sax moom nabu léegi seen digganteem yàgg na yàgg boo xam ne moom waaw mu foogoon naa ni sax gars coow lii sax am quoi mais xëy nañ lii tamit lu waroon am la rek mais nañ bàyyi noonu rek justice daf liggéeyam liggéeyam quoi moo gën. kon lii daal bett na la mais mais aussi euh, peut-être dernier euh, voilà dafa am koo xam ne fi waaw sëriñ Sarr mun naan ñoo bokk ndey ak baay sëriñ ñoo defandoo lépp sëñ man la maase sëriñ Sarr sëriñ Sarr la am Malick maam Malick la naag sëriñ Sarr ñoo bokk ndey ak baay suñu kër yi benn kër la sëriñ Sarr jour bi ñuy Aziz wàccee noonu Aziz gaañoo premier ceeb bi ñu ko toggal si dëjëm bi maag sëriñ Sarr ñoo bokk benn boor ñoo bokk benn boor affaire bi méttoon na sëriñ Sarr trop sax moom xam naa ne Serigne Sarr foofu fekkal ñooñ tamit day xeex man aussi noonu tamit Serigne Sarr fu ma fekk tamit ñu koy néewal doole damay taxaw xeex parce que man ak Serigne Sarr ñoo bokk benn traite. kon gëmuloo ni laale na ci. Serigne man xaw ma xaw ndax laal na wala laalu xaw ma ndax laal na wala laalu mais Serigne Sarr wax dëgg fa yàlla moom borom bu baax te benn problème mais comme yoon moo ko woo dañ déglu yoon rek. waaw dañ déglu yoon rek xam nga ni yoon woowu am na ñeneen ñu fi nekk tamit yoon yoon yoon woowu leen comme yoon yoon taam xool na xool xool ti ko fekk si bii ko jël yóbbu ko nañ déglu yoon rek su fekkee takk na yoon da te su fekkee takkul tamit yoon da ngay bàyyi comme mi si loxo yoon nañ ko ñaaral rek yoon def liggéeyam rek moom it mu nekk si jàmm ak salaam rek hmm. wàllu natt bi nga xam ne sa sœur nga doon ko waaw mooy soo bëggee dégg dëgg Aziz mun naan at bi benn yoon lay dégg na téléphone wala ñaar yoon parce que maamu bokkuñu heure suñu gisantee wax dëgg fer nañ toog waxtaan mbala ganteeg yooyu noonu waaw su ma wooyee téléphone mën naa toogaat ay weer duma woo téléphone man tamit aussi noonu tamit Aziz amul benn problème wax dëgg fer la maa ngi moom moom su ma fekkee su ma waxee mu wax wala moom mu wax ma wax waaw ba bu ma soxlaa damay bàyyi sama lépp wuyu ko moom it même chose noonu mais su dee cadre natt bi ma après laay après après décembre bi laay soog a dégg affaire natt bi quoi parce que am na ñenn yoo xam ne tamit xam nit mu ngeen nekk famille tamit ni nga ñi nga gën a mën a waxal taman yàlla def li man wax moom mënewu ma mu wax mënewu ma ko quoi man moom suma ma liggéey laa tal sama kër waaw après laay soog a dégg affaire natt bi quoi xaalis beeg yooyu noonu quoi waaw. loolu nga la am si lu muy neexul ci xol euh, waxu sabotaas la waxu yàq la yooyu yéen famille bi naka ngeen koy dundee ak ban taxawaay ngeen ci am. waaw Sénégal. Sénégal moo bindoo noonu. yow bii sax dama posé question am na ñoo xam ne ñu ngi wax si yow. dëgg toog nii am ñoo xam ni ñu ngi wax si yow te si dara. Mhm. parce que ñëpp mën ñëw yëkkati woo seen ndox seen loxo ñu ne ñu am ñaan non. Mhm. loolu nag moo lay xam loolu lu bëri. Mhm. waaw moo lay gis loolu lu bëri tamit. loolu mënut a ñaaw quoi ñuy wax dañ leen bàyyi ñuy wax rek. ñuy wax ñu xamul ñu xamul dañ leen bàyyi ñuy wax rek. mais ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg. comme sama zaar lu ma xam. lu ma xam man si Aziz ak lu ma xam si Nabou Leye mhm. ak lu ma xam sama famille moom laa lay témoin ak fu ma mënti dem te moom laay wax benn wax mu laay wax lu ma xam ni waaw am na ay grand nom de laar yoo xamante ni bii ay artist ay mag lañu yoo xamante ni bii euh, moom Aziz jot na liggéey ak ñoom ak ñeneen sax ñoo xamante ni bii dégg nañ koo xam nañ ko ci milieu bi mais euh, gisuñu leen fii quand même euh, loolu naka la leen def non loolu moom wax dëgg fi yàlla mën moom dool déranger mhm. parce que nit ku nekk rek nit moom yaa xam sa bopp quoi. du ma gisee doomu aadama. te du ma foos sa doomu aadama nga ñëwal par force si dëju kenn. kon lu ko téye loolu moom la. su ngay xool sama bopp rek mënumaa dem fépp. mënumaa wax lépp. lu ma xam rek laay def lu fu may dem tamit damay leer na fii tam mën naa fa dem. Mhm. yàlla tuddee tamit ma dem. mais Aziz moom wax dëgg fi yàlla moom su demee bu dugg sa aar bi si fecc Papa Ndiaye la. Papa Ndiaye Thiou. Mhm. moo ko dugal ci fecc. mooy idole mooy idole mhm. ku nekk am nga sa idole mais moom Pape Ndiaye Thiou. Mhm. man may gën a nekk xale. Mhm. bañ na sax Pape Ndiaye Thiou lu mu sol. su ko wëree su ma see ba soot amu ko sax day ba gis benn téere mu ñawal ko. mu ñawal Pape Ndiaye Thiou bu muy yar karaw ay fexeer ba am karaw lu Pape Ndiaye Thiou def si boppam wala mu sol ko def dina def la tout ba am ko waaw mhm. ah, Pape Ndiaye Thiou moo nekkoon kii am quoi moo nekkoon sunuuram daal si aar bi quoi waaw ah, wax dëgg fi yàlla mais Pape Ndiaye Thiou sànq rek maa moom mu ngi taxaw waxtaan ñëwoon na ñun Ndeye Gueye yi ngi fi Ndeye Gueye moom di boobu ba léegi moom it bàyyiwul. walaay di boobu ba léegi. waaw Pape Pape Moussa tamit même chose noonu. Mhm. am na ñeneen artistes yoo xam ne am ñu ko yenn contact yi ñoom Pama ñoom ñëpp <laughs> ak ak waykat bu nekk Grand Dakar Tarba tamit man grand bu baax moom it ñëw na fi yeneen gars yi tam ñëw nañ fi mais xëy na tamit suñu tiw ñu yooyu noonu quoi waaw mënoon lim ñëpp quoi mais gars yi tam gars yi ñu fi de <laughs> waaw ñëpp nag tamit ay gars ñu âge lañ te tamit fekk si nañ ko tamit si naqar bi tamit famille Aziz tamit li ñuy dund quoi mu leen ne mbiram demee sant bu baax a baax. waaw man moom dama ci bëggoon a sànni ñaari kàddu rek man en tant que xaritu Aziz Dabala maanaam.